5M TV Sénégal chaîne bi di jox xibaar yi leen ci anam yu wér te wóor mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen nag eh, jàmm ci seen bi nga xam ne saa ba nekk rek yéen a ngi koy topp di fi taataane li nga xam ne rek moo di ay xibaar jamono ji nag ka nga xam ne rek eh, moo di oustaz Modou Fall mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool fa nga xam ne rek moo di ca TFM moom nag oustaz Modou Fall yëkkati na ay kaddu jëme ko ci li nga xam ne rek moo di tolluwaayu réew mi di Sénégal yëkkati ay kaddu itam jëme ko ci ka nga xam ne rek moo di président Sall ak itam ki nga xam ne rek. Eh,

ay kàddu di wax ne jamono ji nag képp koo xam ne rek da dem rek ba kenn bëggatu la rek da ngay dem fan la bëggee ndax kat moom nag bu fekkoon sax jël ay bagaasam rek dem foo ko mën a bëgg jamono nga xam ne rek moo di ba ñi nga xam ne ñoo di Sénégal yi nag ne bëggatuñ ko nag kon nag war naa dem rek jël ay bagaasam rek dem fa ñu oustaz Modou Fall moo ko daal di euh, xamle di wax ne ki nga xam ne rek moo di Macky Sall jamono ji nag la mu koy digal rek mu fekkoon dafa bëgg jël troisième mandat moo di ne da koy wax ne fekkee yi nag nangul la loolee ba du jur benn ci réew mi kon nag mën nga déposé candidat waaye itam bu fekkee nag ñi nga xam ne ñoo di Sénégal yi nag dañoo lànk ba tëdd ca ba kon nag lu ni mel mënul nekk ci réew mi de Sénégal loolee nag kàddu yi ka nga xam ne rek moo di oustaz Modou Fall la ginnaaw bi ñu ko invité foofee nga xam ne rek moo di ca Seneweb